bi mu méttee affaire bi dina seen bi day xee président nous la Médina a la Médina a été

sag ma bay wax fi Thank you. Jee kaay jee kaay kaay. demal demal. non amuñu dara lu ñu war a wax. gars yi gars yi xoolal. vraiment Seydou mooy coordinateur. bi président bi du Seydou de président moo ci décision bu tegoon Seydou kese la. ñun xam nañ ni mu demee mais bu tegoon Seydou bu doon Medina kese Seydou nañu jël. Seydou la. mais dañuy topp suñu responsable suñu leader coordinateur Seydou Gueye moom lañ am depuis Dekkil Ngor dañu ànd ak moom depuis 2008 di combattre di combattre di ànd ak moom comme lu ñuy wax avec respect avec conviction la ñu àndal mais Macky Sall nag mais daf ñu waroon woo waxtaan ñun avant tout ça décision yi ñuy jël nii parce que dañoo xeex depuis Dekkil Ngor ànd ak moom depuis 2012 à la Médina mais duñ jël benn. benn association benn ASC wala ñu jël ñu ñuy jiite mais loolu tayale APR la dañoo tayale APR si benn si benn si benn si benn liste mais ñun daal. vraiment après dinañ woote les jeunes APR ñu woote benn bokk yaakaar ñoo toogoon bi mais après waa APR les jeunes APR dinañ woote incha allah bu neexee yàlla merci beaucoup. kay kay. Macky Sall day dem amal ñu parce que ñun mënuñu xëy suba ba ngoon bàyyi suñu suñu toog bàyyi suñu suñu suñu lépp ñëw di nekk ci Macky Sall ba pare Macky Sall ñu fayee lii waaye nag dañoo bëgg a xam ne lu loolu yàlla rek neen ndax Macky Sall waroon na fay leneen seen liggéey lu bokkul ak lii ndax ñun ñu ngi ni dañuy wàcc liggéey sonn suñu kër yi ba di ko campagne ba minuit cent francs mal di musuñu ko jox Seydou Gueye ni duñu bàyyi ma fenn Seydou Gueye Macky Sall amul dara dinañu woote après les jeunes dinañu woote dinañu woote